mbokki Leewtoo ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax baax ñu ngi fii nga xam ne moom mooy Adrien Senghor miin ngeen ñu fi gis nga nu muy demee chaque jour tey Madou Mbingaan moo organisé daan ko waaj eh, ñu ñëw ba bés bi tey yegg si nañ ci waaye xam ngeen ne lamb fu mu ne nii bëri na ay journée tey ñu bëri ñuy Garga Mbossé ak ki nga xam ne moom mooy Moussa Ndoye ci stade Iba Mar Diop Pape Oudou Fall organisé ko waaye yàgg tey ñu ñëw fii ci Adrien Senghor di lambi séeréer wala lamb simple bokk Madou Mbingaan organisé ko di ancien lutteur kon li ñuy def mooy yaa ci gis gars yi ñëw gars yi seen yi jox ko gardien bi mu téel leen affaire yi boo ko defee kenn ku ne boo ñëwee jëlaat sa scooter ci njëkk ak teraanga mais yàgg dañuy toppante ma ñëw xool ki nga xam ne moom mooy garder scooters yi nan la koy garder ak amateurs yi parce suma ginnaaw yéen a gis amateurs yaa ngi nii lang dañuy def rang di jënd billet ku jënd billet rek ñiy yoggi loge ñiy wàcc ci suuf waaye yàgg topp ma ba ci kanam mbokki Leewtoo moom mooy garder scooter yi ah moom suñu mbokk baay fal la yéen a ko gis kenn waaye sa liggéey bi nu muy demee nii ak ak lamb ji waaw liggéey bi chaque dimanche la bu lamb jotee dañuy ñëw aménager ko gérer moto yi moto bu gaare fay téeméer oto bu gaare fay téeméer ñu gérer sécurité bi boo lamb bi jeex suñ ñëwee ñoom ñëpp ñu jël seen moto ñibbi si jaamu parce que avant dañ fi doon sàcc ay moto làmb dafi doon tas ñu fi sàcc ay moto di ko jiiñ jeunes yi dëkk fii si lañ am initiative bi xam nga ñu ne nañ ko def sécurité bi gën a am pour ñu am si lu ñu mun a xam nga bu dimanche jotatee bu làmb tëggatee ñu mun si am dara quoi. kon ni mu demee nii yaa ngi ciy sa bopp. waaw waaw yàlla bu baax daal sant yàlla. làmb dafa yaatu. waaw yaatu na moom yaatu na ba ñu yëg ko moom waaw. li du mbëri rek ay fayee ko. waaw waaw ñu siy fayeeku bëri na am nañ fi ay rax ay mag yu fiy jaay si biir ñoom tamit ñu ngi fayeeku nice sant yàlla daal sant yàlla. moto yi daal ñu ngi en sécurité kenn ku nekk boo ñëwee ni nga indee sa moto noonu nga koy fekkee jëlawaat ko ci. waaw kenn ku nekk boo joxee sa moto dañ lay jox ticket soo ñëwaatee boo andee ticket bi nga jël sa moto si jaamu ñëpp dem ñibbi jaamu continuer quoi. mais ban mbër ngay supporter. man Reug Reug mooy sama mbër quoi Reug Reug. ki léew tey yéen a yàgg. <laughs> Reug Reug daal bëri nañ supporter loo ci ti xew Baye Fall ngook moom mooy fii garde scooter yi ku ñëw noo ko tegee rek bu soobee yàlla ti ni mu ko bëggee mooy noonu nga koy fekkee waaye sans pour autant tarder yàgg xoolal ma ki xoolal ma xoolal ma ci mbedd mi jëlal ma lii kii mooy Samba Linguère bu Ngunjaan juste ñu ñëw rek fekk muy dugg si làmbagi noon noonu ak i yëfam dañuy dem ci biir xooli maa du mbingaan lan la indil amateur yi ak naka ak nan yàgg kon mbokki Leewtoo ci kanam lii moom du du mbër lii moom du cumikaayu mbër tey Maadou Mbingaan la ñu gis xam loolu mu ngi doon di waxtaan mbokki Leewtoo nii lañ duggee ci biir fekk Maadou Mbingaan mu am la muy def yëngal na biteel bi yàgg te ñoo tàllal loxo mu defoon ñu ko ci waa Mbingaan ñu ngi lay nuyu. Ah, leen di fay. waaw mais ah, tey moom. du yomb. tey nga ci séeréer bi. comme yi nee nañu du yomb xëy moom waagee yomb. a fela roog parce que amateur ki kan ndiilo den da ndiilo am ah, kon itam mais nag den moƴa xamo ndiilwe den ta ref a fet ma fa andoona yee e a ndiil o an trop a yakamti un na den it den andu ke da mbog yaasam roog a a den i eh, keke lancement yo rek ah, dégg ci yàgg nee na lii lancement la lancement bi nag bal bi day tàgg nuyu naa gars yi yaa ngi nii yéen a gis contrôle yaa ngi nii Doudou Faye Abdou Waxal ak gars yëpp nuyu nañ ñëpp yaa ngi nii yàgg comme ni ñu koy gisee toujours mbër yeeg amateur yi ñëpp kenn ku ne da toog yaa ci gis mbër yaa ngi noonu hey daa li xew ci biir jëlal ma lii. ba jën bi <laughs> xoolal bitel yi mbër yi dañoo dafa mel <laughs> xoolal ma lii rek bii ndox moom xanaa càngaay la jóge dafa mel ni càngaay jóge yaa jëlal ma kenn koo ci ak ni nga ñëwee kii daa wàññi biteelam wala la indi waa mais champion ñu ngi lay nuyu. Seydou <laughs> waaw sa waa ñu lay fay. waa mais tey biteel bariwul de lu xew. waaw noonu la noonu la dañoo ñëw noonu rek compétir la rek contact la rek. dañoo ñëw pour contact rek. sëriñ bi dalaa ah, du loolu sax dañoo ñëw pour contact rek affaire. ah waaw mais tey noo ko gisee da nga koy jël wala. ah dégguma de. waaw incha naa ko incha yàlla waaw. moom laa bëgg de. ah waaw dañ koy jël de incha allah. bu neexee yàlla suñu borom. ah non man maa koy jël bu soobee yàlla. jël ñun ñaar dañuy demee final quoi. ñoo koy final incha allah ñun ñaar ñoo koy final ma daan ko final mu neexee yàlla waaw. xoolal ma ci mi kaay xaw xaw ma lu xew yàgg waaye bëjën yi daal bëri nañu bëjën yi moom bëri nañu yàgg. Pilon. waaw. Rock Énergie. waaw. Ah. kii mooy Caterpillar. waaw ah, mais tey moom. Eh, da nga fi gëj wala nu mu demee noonu. waaw moom maa fi door a ñëw nag. waaw mais yàlla may ma rek. waaw. waaw fas jël ko. waaw damaa fas jël ko. est-ce que dina yokk. sama bopp daal. Ah. waaw. waaw. kon koy xaar final. amiin amiin. waaw baax na. Caterpillar Brock énergie. mbër yëpp fi. xale yaa ngi ndeysaan kii xelal ngu ñoon la mbër yi kenn da ko bàyyi sa morom gas nañ pax ma am lañ ca def jël ñaane suul ci biir raxasu suul ñaan nañu def ca biir suul ko jëlaat suuf sa jaxase eh, am na lum ca tibb ndeysaan ndeysaan waaye mar naa de la fay maa ngi sant baax a baax a baax biram yaa si jàmm bu baax waaw waaw allah lambu ji moom dina neex bu baax a baax a baax na am nañ si yaakaar yal nañu yàlla si tubaab ñu jël ko incha allahu rabbi gëm nañ ko man maay bulo balaa bu Ngunjaan bulo balaa bu Ngunjaan waaw incha allah léppay baax incha allah lambu ji dina neex quoi waaw incha allah ana waa Ngoundiane. waa ñu sakku. ñaan ci ñu. mu nga mu ñu ñaanal bu baax a baax a tey du yomb tey foo ñu wane bopp keroog dañoo ñàkk fii demi final tey ñu war leeral quoi incha allah. Ibou Senghor numéro bu Gana xale baa ngay diw moo fi finalu woon ak général bu Malika Ibou Senghor diwu na mu ngay ñaan mu ngay jàpp ndeysaan caterpillar a ngi noon ñu romb ki mooy caterpillar bu rok xale bi Modou Lo mooy seen tête d'affiche waaye gan jëlema Ibou Senghor ak caaya bi <laughs> Ibou Senghor taala waa mais moom tey dina doy waar Talla Ndiaye yaa nga Iba Mar Diop mais nga def. maa ngi rek. Eh, waaw waaw yaay taaboor. ah. man gën a saal. o jaxaaw. i o ah njom ne dara na nga faxtu. i baabi la réplique may. ah. a faaxante ne. i a faaxa baabi la réplique may yo. Oh. i. moom moom naka yow rek. waaw ku ma la sonal la nga doog a taaboor man foogoo leen jàmbaar way jógee jàmbaar jooni appel rek kontaan rek ñoom moom ka mi quoi affaire la bel quoi waaw ñu ma fi yaa ci gis xale yi ñoom ñëpp ndeysaan mbir ngi noonu ak keneen ñaan la war a xale bi ñaan mbir si law ma ndeysaan kenn ku nekk ni ko yaakaare jëlal ma amateur yi faral amatrice yi yàgg amul góor amul jigéen kenn ku ne da ngay toog jàpp sa jàmbur di seetaan lamb ji di xaar tirage bi gis nga ñu ngay waxtaan seen biir falal mag ñi jëlal ma jigéen ñi ñëpp ba me mbër yow looy looy nappaate ni non nappaate wu ma sax ma daa tawul la non dara daa am lu mu bëgg rek waaw dama bëgg ba xaalis bi la mu bëgg xaalis xaalis bi la mu bëgg waaw jël ko yóbbu ko jël ko yóbbu ko Arafat grand laa dëkk. bala nga dem xaalis da ngay dem final. waaw loolu dëgg la kii du tey lii du tey si ñun yàgg nañ fee ñëw di quart de finale bëre nañ fekk champion bu ne champion bu ne bëre nañ fekk moom lii du tey si ñun quoi ah. kii non dama fee yàgg demi final bi may xeex. yàlla xam na loolu mais tey lépp si kanam léppay leer quoi incha allah yàlla baax. yaa man jaaxle naa yàlla ma musoor bi xool ko gis nga nu mu musooroo nga xool mbub mbub bi xoolal faar yi ak nu moo demee man lii jaaxal na ma yàgg. yàgg nuyoo bi doy na waar yàgg <laughs> nay fàttali Adama Jali xoolal ma. Lambaki hey Ngees Njaay ngok oh loolu Ngees Njaay jëm ci law nañu ndomba min ci raw war nañu ko ndomba ah daan nañu min ci raw a xale bi daa diis dafa mel ni gaan ëpp doole wala bu bee dool du xale yi. Ndeye Fatou eh fu ñu jëm ak Ndeye na ko gaan daan na ko yàgg ay gaan Ibou Senghor xoolal Ibou Senghor laa ilaha illa xale bi yàgg doy na waar Ibou Senghor numéro 2 ay lay wax ci waay bi biir waaw waaye yàgg nee na raaboor yi ñoom ñoo fi moom loolu meenu ndey la